ndax Augustin yi waxoon na ma ko toogal toogal toogal loolu tax nag toog naa toog bi ma toog nag ah gis naa ci loo xam ne li avancement la waaw. lan lan ah. eh, conseil bi. li ma koy dénk moy ñu gën a góor góorgóorlu ndax liggéey ak mbooloo moy doole ndax conseil yi ah, dañu ko wax sa Benno Bokk Yaakaar kon bu ñu dekkee Benno Bokk Yaakaar dañoo bëgg eh, war a bokk benn jëmukaay te benn jëmukaay bi. mooy topp ci ginnaaw ministre maire Augustin mm-hmm. Tine pour ñu jàppale ko euh, liggéey bi gën a jëm kanam ci échéance politique yi ñu jëm loolu daal moo moom laa dénki conseil bi euh, ci lu ñu jëm nii. Euh, gërëm suñu borom bu baax a baax gërëm président de la république bi nga xam ne jël na ay oto jagle ko donc maire yëpp cinq cent cinquante et quelques mairies donc dans le pays donc pour wax ni tey. mairie yi dinañu am moyen euh, maanaam euh, jumtukaay bi nga xam ni moo leen di permettre ñu mën a def seen liggéey euh, nu mu gën a baaxee donc moo xam dinañu ci ko utiliser pour ñëw liggéey moo xam aussi dinañu ko utiliser pour tâche yi nga xam ni ñoo taxoon ñu fal leen donc dañu ci gërëm bu baax monsieur le président de la république wax fii Thiès Fandène plus particulièrement comme yàlla def na ñun maire bi Euh, am na oto maire adjoint bi moom la ñu jagleel oto bi pour liggéey bi gën a yomb voilà donc loolu euh, dañu dañ ko ci féliciter di ko encourager parce que boobu ba léegi mi ngi ci liggéey bi mi ngi koy def ci anam yu rafet euh, ak nu mu nu mu gënee donc vraiment ñu ngi koy ñu ngi koy encourager ñu ngi koy gërëm di ko sant ak équipe bi koy accompagner aussi ñu ngi ciy sant ñëpp vraiment di gërëm ñëpp. waaw loolu yaakaar naa mooy credo monsieur le président de la république ku wax émergence aussi euh, donc da ngay da ngay ëmb lépp li nga xam ni mooy tax euh, donc liggéey bi euh, gën a gaaw liggéey bi gën a baax jumtukaay yi aussi président de la république engagement am mooy fexe ba Sénégal émergent fekk fekk 2035 mais ak li ñu gis fi mu ne nii am nañu yaakaar ni duñ fa àgg am nañu yaakaar ni balaa 2035 Sénégal dina émergent parce que yaakaar naa. yéen gis ngeen ñun euh, suñu credo mooy weddi gis bokku ci yaakaar naa yàgg nga ñu yàgg ñëw Fandène xam na ñu ni Fandène mel loolu nii ak te Sénégal yëpp la du Fandène rek donc euh, yaakaar naa euh, développement boobu dina dem ci nit ñi donc capital humain naturellement président aussi fexe na pour que yoon yi fi nga xam ni fa la ñuy jaar pour dem mu nekk yoon yu baax loolu aussi yaakaar naa lu am solo la wax nañu aussi mbirum sécurité yaakaar naa président lépp la ëmbale pour que Sénégal émergent donc moo xam agriculture domaine boo jël euh, Sénégal def na ci ay jéego électricité bi gis ngeen euh, ci lu yàggul def nañu donc euh, inauguration ñaari centrale de vingt mégawatts benn bi bokkul benn bi Malicounda ak yeneen ak yeneen jéego yi nga xam ni am na yaakaar ni fekk fii. ak tuuti du ñu waxati waxi électricité gëm naa ni ñëpp dinañu am électricité donc domaine yi yëpp am nañu yaakaar ni jéego yuñ ci def fekk fii ak 2019 euh, euh, dinañu am satisfaction. Euh, président de la république wax na ni dinañu respecter le calendrier républicain bi nga xam ni def fixer élection yi ci 2017. donc euh, avant le mois de juillet de 2017 probablement au mois de mai donc euh, yooyu ay wax la rek xam nga ñun de toute façon pare nañu pour élection yi 2017 te incha allah euh, ci li ñu wax li président wax en tout cas gëm nañu ni c'est en 2017 la lañu koy def bu yeboo ku bëgg a dem élection pare 2017. le sas bi nga sosoo woon ci meeru département yëpp ñu fekk si président de euh, nga am euh, bi nga xamee ne euh, am ci mbégte te damay wax ni loolu xalaatu président la mu nekk xalaat bu baax mu méngoo ak li nga xam ni maire yi aussi. Euh, bëgg nañu ko donc bëgg nañu ànd ak président bëgg nañu ko accompagner parce que xam nañu nii dafa bëgg sukkali gox yi dafa bëgg jëmale Sénégal kanam donc loolu moo tax ñoom ñëpp presque ñu ñëw euh, donc ànd ak moom accompagner ko dañ ciy am mbégte rek di sant suñu borom bu baax a baax. Euh, yàgg nañu ànd yaakaar naa biir Thiès ñëpp xam nañu ni bu dee Benno Bokk Yaakaar toujours ñooy ànd amul benn problème partie yi fi nekk yëpp ànd nañu liggéey. ànd na ñu def investiture au conseil des collectivités territoriales gis ngeen ni mu demee yàlla def ñu gagné ñu ko ci sant bu baax a baax euh, tey léegi euh, message bi may jox mooy ni mbooloo mooy doole te bu ñu àndee dañuy gagné te am naa yaakaar ni ni ñu àndee ba léegi dinañu ànd ci euh, donc élection législative yi 2017 maa ngi sant ñëpp gërëm ñëpp.